Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Merci encore une fois de nous suivre un peu partout au Sénégal et dans le monde, en Afrique. Nous vous disons bonjour et la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui avec vous, c'est parce que nous célébrons ce qu'on appelle la Journée internationale des femmes. Pourquoi une journée internationale des femmes? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici le mars. D'habitude, avec des femmes. des femmes qui sont euh, euh, des femmes actives. On ne dira pas féministes, mais des femmes actives dans le de, de, du développement. Qui, des femmes qui se sont activées dans le développement parce qu'elles ne sont pas seulement là pour elles, mais pour toute la population sénégalaise. Elles se sont longtemps battues et nous avons le plaisir de les avoir aujourd'hui avec nous. Bonjour encore une fois et bienvenue à vous. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Madame Soukaina Elle est ancienne ministre de la coopération décentralisée et de la planification régionale, présidente fondatrice de FDA Microfinance, représentante de la Fondation INAFI internationale qui regroupe des institutions de microfinance d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Bonjour, Madame Bonjour, le ministre. Nina. Bonjour, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir invités et d'avoir organisé cette belle journée. merci. beaucoup. J'ai également le plaisir d'avoir avec moi et d'avoir avec nous toutes Madame Hawa Dia Thiam, honorable députée Yoonu Askan Wi, ancienne ministre chargée des relations avec les institutions et le présidente de la commission santé de, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale à l'Assemblée. Elle est ancienne présidente du COSEF. Bonjour honorable. Bonjour. d'être venu. Merci de nous avoir invités à, cette discussion. En ce jour du mars, nous en profitons souhaiter une bonne fête de mars, une bonne fête de la femme à l'ensemble des femmes du Sénégal. Merci beaucoup. Merci d'être là Et du monde. J'ai également le plaisir de recevoir avec nous, elle avec nous, Madame Safietou Diop. Elle est la présidente du réseau Sigil Jigéen et elle est membre fondatrice de ce réseau. Elle est membre également fondatrice de beaucoup d'autres organisations féminines. Merci d'être là. Merci. Merci, bienvenue. Sans plus tarder, on va on va se tourner vers euh, notre charmant public. On a avec nous également Madame Rakiwan. Elle est la présidente de Coco Femmes. Elle est enseignante, élue locale à la ville de Dakar. Elle est chargée de la commission éducation. Vous avez à côté de vous Madame euh, Matindiaï. Merci beaucoup d'être venue. Elle est la présidente de RAFPA. Nous avons également avec nous Madame Henriette Faye, Madame Pina. Elle est la responsable de la commission des finances à la mairie de Gorée. Quand on dit le mars, honorable Awa Dia on a démarré ce 8 mars, comment Quand on de quoi il s'agissait au départ Je vous remercie. Euh, euh C'est bien qu'on campe euh, ce débat et qu'on fasse tout le temps une rétrospective sur cette journée de la femme. Ça a été d'abord la journée internationale de la femme travailleuse et aujourd'hui on a pu, depuis 1977, euh, institutionnaliser cette journée internationale de la femme. C'est tout un processus parce que c'était pour commémorer d'abord le combat des femmes depuis les années 1900, 1910, 1911, avec les femmes de Chicago, avec les femmes de Pétersbourg, de Saint-Pétersbourg, de Russie. C'est des femmes qui ont toujours revendiqué. Le mois de mars a toujours été un mois pendant lequel les femmes s'étaient mobilisées pour réclamer en 1914 la paix et le pain, pour réclamer en 1911 également euh, <clears throat> au droit de vote, ou alors pour réclamer autre chose. Vous savez, le, ça a été aussi des moments importants, et c'est au niveau de l'international socialiste que Clara Zetkin a fait la demande à ce qu'on puisse célébrer une journée internationale de la femme. Généralement, ça s'était fait les derniers dimanches des mois de mars, jusqu'à ce qu'on puisse caler une date autour de laquelle tout le monde s'est entendu pour commémorer la femme, pour commémorer et pour rendre aussi justice à ces femmes qui s'étaient sacrifiées, qui avaient réclamé le droit de vote, qui avaient réclamé le droit de grève, qui avaient réclamé beaucoup de droits des femmes. Cette année, c'est un mars particulier C'est un 8 mars qui se déroule 20 ans après la déclaration de Beijing. Et vous savez qu'à Beijing, on avait mis le doigt sur les problèmes auxquels les femmes étaient confrontées malgré toutes les conventions qui ont été votées, malgré tous les protocoles qui luttaient contre la discrimination à l'égard des femmes. Aujourd'hui, nous sommes dans le, à l'aise pour pouvoir faire le bilan, évaluer. Donc c'est un 8 mars particulier également pour le Sénégal Ça nous permet en tout cas aujourd'hui de voir tout ce qui a été fait pour les femmes et ce qui reste à faire pour l'égalité des sexes, pour une meilleure considération de la femme, pour une meilleure implication de la femme dans la société, dans sénégalaise comme nous sommes aujourd'hui au Sénégal. Madame Safietou Diop, au Sénégal, comment ça a commencé en Quelle a été la raison pour laquelle on s'est dit il faut que nous célébrions le mars Est-ce que ça a été parce qu'on on a voulu suivre la mouvance et euh, le, le, rythme de, la communauté internationale Merci Nina. D'abord, euh, je voudrais euh, féliciter euh, la 2STV d'avoir organisé ce 8 mars euh, et euh, célébrer les femmes sénégalaises. Donc à toutes nos on leur dit nos félicitations, nos encouragements. Aujourd'hui, c'est une journée de mais c'est une journée de bilan, comme l'a dit euh, le Sénégal a commencé à fêter le 8 mars officiellement en 1975. Mais avant 1975, il y a eu des mouvements particulièrement les mouvements de gauche qui ont eu à initier cette fête-là parce que tout simplement c'est une journée de revendication. Comme elle l'a si bien dit, c'est la SDN en 1911 qui a officialisé la fête. Le Sénégal, avant 1975 avec Senghor, fêtait la quinzaine de la femme. parce qu'il ne voulait pas reconnaître le 8 mars, disant que ce sont les mouvements de gauche qui sont à la base de cette fête. Et donc, euh, vraiment, c'est une fête que qu'ils ne reconnaissent pas en tant que pouvoir en place. Parce que tout simplement, ils pensaient que les mouvements féminins qui revendiquaient la fête étaient des mouvements subversifs. Alors, c'est pourquoi, vraiment, je profite de l'occasion pour marquer un temps et euh, remercier nos anciennes, les pionnières qui ont eu à déblayer le terrain. Ce n'était pas facile, Hawa ne me démentira pas. Nous avons, elles ont fêté dans les, dans les maisons. Elles ont été chassées, elles ont été brimées, elles ont fêté dans les villages elles ont été chassées elles ont été brimées c'est seulement ce mouvement de revendication qui a été poursuivi par ces pionnières qui nous a valu aujourd'hui cette officialisation de la fête pour que tout le monde toute la communauté internationale et tout, tous les mouvements féminins au Sénégal puissent reconnaître que c'est une journée de commémoration. Et c'est pourquoi pour nous c'est une fête extrêmement importante ici au Sénégal les Sénégalaises aussi ont eu à donner de leur temps et de l'impôt de leur vie pour que cette fête-là soit reconnue. Madame le ministre, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, en dehors du fait qu'on fête le 8 mars, arriver à recadrer ce mars dans le canevas et dans l'objectif de faire le bilan et de faire une introspection en étant également dans la prospective. Merci beaucoup Nina. Je vais m'associer aussi à mes sœurs pour euh, d'abord souhaiter une excellente journée du mars à toutes les femmes sénégalaises, africaines et du monde parce que c'est par là que je voudrais commencer. Si nous sommes arrivés à avoir une fête internationale du 8 mars, c'est parce qu'il y a une association des forces, une mutualisation des forces qui nous a permis d'atteindre cet objectif-là. Et j'espère que nous allons continuer dans ce sens-là. Et pour répondre à votre question, je pense que aussi il faut rappeler que la question des femmes, la question de leur participation, leur bataille a toujours été considérée comme une question à part socialement parce que, et politiquement. Euh, on, on, on pense que c'est une affaire des femmes, alors que l'affaire des femmes, c'est une affaire de société. Aujourd'hui, nous représentons plus de 50% de la population. Euh, je, je ne pense pas que 50% puisse développer un pays. Donc, en regardant sous cet angle-là, euh, déjà, on voit que le problème doit être reposé autrement. On ne doit plus faire du 8 mars la question, la, le problème des femmes. C'est un problème de société, c'est un problème qui concerne les hommes et les femmes. C'est pour ça que, à un moment donné, nous avons parlé de genre. Mais même la question de genre est biaisée parce qu'on en fait toujours une question des femmes. La question de genre interpelle justement les hommes et leur demande de participer et de contribuer. Et ce qui est paradoxal dans un pays comme le Sénégal, puisque c'est de là que nous sommes, il n'y a pas un seul homme sénégalais qui ne fête pas sa mère, qui ne se glorifie pas d'être le fils d'eux. Et paradoxalement, ce sont ces mêmes personnes-là qui aujourd'hui, quand on parle des femmes, sourient. Et je dis toujours que les filles sont les copines de leur père. les papas sont toujours fiers de leurs filles, euh, ne veulent pas qu'on leur dise quoi que ce soit. À la limite, ce sont les princesses de la maison. Mais de la même manière, quand il s'agit de questions de femmes, ils ont une attitude et un comportement qui est quand même quelque part difficile à comprendre. Nous sommes à l'heure du bilan. Parce que il, il d'abord, euh, euh, il, faut, il faut dire aussi que les choses ont été présentées aux femmes comme une fête, et simplement une fête. C'est vrai que c'est une fête. parce que ça démontre l'atteinte d'un objectif que nous avions visé, en tout cas une partie de l'objectif. Donc nous devons fêter cela, mais nous devons à tout moment être vigilants et faire le bilan, et faire l'évaluation de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas. J'ai l'impression que les femmes, après s'être battues, après être arrivées là, considèrent qu'on leur fait cadeau de quelque chose. Ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. Et c'est un droit que nous devons prendre pleinement. Donc, Par rapport à cela, le 8 mars doit être toujours une période de revendication. Et la revendication commence par évaluer qu'est-ce qu'on a eu par rapport à notre demande, qu'est-ce qu'on peut avoir, donc euh, qu'est-ce qu'on peut projeter dans l'avenir pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Donc la prospective ne peut être basée que sur cela. Mais au Sénégal aussi, on a l'impression qu'on a toujours tendance à recommencer. Si je regarde le mouvement des femmes, et Hawa et Safietou sont là pour, pour le confirmer ou non, nous nous sommes battus ensemble pour atteindre beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'on aurait pu parler de CEDAV, de, de beaucoup d'autres choses, si nous-mêmes nous n'étions nous pas, par exemple, chaque année aux Nations Unies, à côté de nos gouvernements, à faire du lobby, à nous battre. Mais aujourd'hui, on est complètement déconnecté, c'est le cas de le dire. Donc, et je pense que c'est ça d'abord qu'il faut combattre. Le fait que chaque fois, on a l'impression qu'on on recommence. C'est une continuité. Et nous devons former les jeunes à prendre le relais. Et c'est seulement en ce moment-là qu'on pourra atteindre cette bataille-là. La prospective doit aussi nous permettre d'évaluer euh, si et de vérifier que les femmes ont les soins de santé appropriés. Est-ce qu'on n'est pas encore à des niveaux où les femmes vont toujours puiser de l'eau à 20 km ou à 15 km ou à 10 km Celles ont de l'eau, est-ce que cette eau est propre et appropriée Est-ce qu'elles ne vont pas toujours accoucher elles rentrent sur des charrettes Est-ce qu'elles ont une banque à côté Est-ce que leur vie a véritablement changé Moi, c'est ça que je voudrais poser comme question en disant que la prospective doit être bâtie sur cette base-là. Est-ce que leur vie a véritablement changé C'est ce qui va nous emmener à parler justement du thème de cette année euh, sur le 8 mars qui parle de l'autonomisation des femmes l'autonomisation de l'humanité. Mm -hmm. Quand on dit l'autonomisation de l'humanité, est à dire, Madame Safietou Diop, mm -hmm. qu'à des femmes, on arrive à autonomiser toute l'humanité et qu'est-ce que ça veut dire l'autonomisation des femmes quand, quand on parle de cela, de quoi il exactement, de façon très concrète En 85, les Nations Unies ont fait le bilan du plan d'action et ont décrété dix ans pour euh, le, le, un pour pousser les femmes à plus de euh, d'autonomie, plus de reconnaissance. À l'époque, les chercheurs du développement et les sociologues parlaient de l'approche intégration des femmes dans le développement. C'est l'époque où on parlait en Afrique de projet, projet éléphant blanc. Il va falloir qu'on se rappelle de cela. C'est ça. Pourquoi ces projets de développement ont été des éléphants blancs? C'est parce que en élaborant ces progrès, pro, projets, ces programmes de développement, les États ignoraient complètement l'existence de ces femmes. c'est 52 pour cent de la main-d'œuvre et qui doivent participer à façonner le développement. Les, les, les Nations Unies ont développé ce programme de la décennie des femmes et nous à la quatrième conférence euh, euh des femmes en 1995 qui a débouché sur le plan d'action de Beijing. Il faut se rappeler, Soukaina, euh, nous avions ab abrité ici à Dakar la conférence régionale africaine sous votre autorité parce que vous étiez la présidente de la commission d'organisation ici pour les ONG à l'époque c'est Ndioro Ndiaye qui était le ministre de la mm-hmm. femme de mm-hmm. la condition féminine Tout à fait. Mm-hmm. nous avons tenu cette conférence cette quatrième conférence préparatoire africaine préparatoire de Beijing où nous avons sorti ce qu'on appelle la déclaration de Dakar sur Caïman. Tout à fait. Sous votre autorité. Mhm. À l'époque, j'étais la plus jeune du groupe Alors. Ah avec Aminata Mbengue Ndiaye mhm. et les Mariem Dem et mhm. consorts. Nous sommes allés à Beijing avec cette plateforme africaine qui, est, euh, qui était tout à fait orientée vers sept domaines d'intervention. où on mettait l'accent sur l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme de façon essentielle. Nous sommes allés à Beijing avec cette plateforme africaine et travaillé avec nos autres sœurs des quatre autres continents pour produire ce qu'on appelle la plateforme de Beijing en 12 points. parce qu'il fallait prendre en charge les autres préoccupations des autres continents. Mm. Mais c'est l'Afrique qui a amené les points les plus importants à partir de sa plateforme. Absolument. Alors, depuis cette plateforme en 1995, les États se sont engagés à faire la promotion du des femmes. Mm-hmm. à travers l'application la mise en œuvre de ces douze points de développement et pour ce faire il a fallu que nous puissions vraiment travailler avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'APROGENRE qui prend en charge les femmes les groupes vulnérables comme les handicapés les, les classes les plus pauvres mm -hmm. pour pouvoir développer des programmes et politiques sensibles à ces groupes-là, mmh. qui les en charge en inclusion parfaite, en participation parfaite dans le cadre du développement. C'est de ça qu'il a fallu aujourd'hui, pendant de 95 à nos jours, pendant 20 ans, et toute la société civile africaine s'est mobilisée, toute la société civile mondiale s'est mobilisée, les États ont essayé à partir des plans d'action nationaux, parce que je me rappelle bien, le Sénégal a élaboré la, le PANAF après que, euh, Beijing. Les États ont commencé à faire leurs plans d'action nationaux, mais la société civile africaine et particulièrement au Sénégal, la société civile sénégalaise s'en est mise pour prendre en charge ces 12 domaines d'intervention pour euh, les concrétiser euh, avec les femmes rurales, les femmes euh, vulnérables, les femmes euh, euh, analphabètes pour qu'on soit à ce point. Et donc nous avons dépassé quatre, trois étapes. La quatrième, c'est Beijing qui a produit le plan d'action et nous en sommes actuellement à un bilan de 20 ans d'application de ce plan d'action de Beijing. Après avoir fait tout ce chemin, après avoir misé sur euh, euh, les catégories vulnérables après avoir mis toutes les ressources à la disposition des États et des acteurs pour nous il fallait quand même faire le bilan et passer à une étape supérieure. honorable Hawa Diacham, ans après Beijing, est-ce que réellement la situation et la condition des femmes, particulièrement au Sénégal, si on veut élargir à l'Afrique, elle a réellement évolué? Est-ce que en tant que député au, à, à l'Assemblée nationale, quand on regarde les ce qu'on a eu comme loi, de la femme sénégalaise Je crois que quand même tout un processus. Effectivement. On des dates repères, 95, c'est avec euh, la déclaration de avec la plateforme. Mhm.

il fallait d'abord prendre conscience et se libérer. Quoique c'est une occasion, Safietou a rendu hommage à, aux pionnières, elles en font partie. Il y en a aussi qui ont lutté pour le mouvement de libération des femmes du PAI. Mm. Elles ont été là, ça c'était l'aspect politique. Et ça continuait avec la génération euh, des Marie-Angélique, de Eva-Marie Colsec, qui sont aujourd'hui ministres, de euh, qui est aujourd'hui euh, conseiller à la primature. Donc c'est pour dire que toutes ces femmes aussi ont apporté leur contribution à Aminata Mengenyaï qui était d'un autre côté. Il y a eu les dames de la société civile, les Tata Annette Meyderneville et d'autres. Je crois qu'il y a eu tout un processus. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mm-hmm. et on sent même le progrès. Et on sent même l'évolution jusqu'à ce qu'aujourd'hui on prétende en faire une question de mm-hmm. société. Je crois que c'est on est dans une logique, on est dans une dynamique qui fait que le Sénégal avait ratifié toutes les conventions. Mm-hmm. La CEDEF, la convention qui lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il y a la Charte africaine des droits de l'homme et le, euh, euh, des droits y a le protocole de Maputo qui a conféré une part belle aux femmes. Je crois qu'aujourd'hui, si on a pu avoir une loi sur la parité, C'est grâce à ce protocole de Maputo, en son article 9, qui permet à ce qu'il y ait une, prise de, euh, une présence paritaire dans toutes les instances de décision. C'est au niveau des décisions que l'on prend que l'on peut sentir l'impact. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'évaluer et de savoir si l'impact de toutes les décisions que nous prenons en tant que loi à l'endroit des femmes ou en tant que loi faisant évoluer, participant au bien-être de la population. Il y a eu une évolution dans différents domaines. Ça aussi, ça peut faire partie du bilan depuis Beijing, de, depuis Beijing jusqu'à aujourd'hui. En 20 ans quand même, au Sénégal, même si c'est timide, on peut quand même ne pas être nihiliste, dire que nous avons fait ce travail, que nous n'avons pas perdu du temps et que c'est des choses qui vont de l'avant. et que nous ne comptons pas aller en arrière et qu'il nous faut réellement consolider ce que nous avons. Je crois que c'est une question de changement de mentalité aussi qu'il nous faut, parce que nous sommes toujours dirigés par des hommes qui n'ont peut-être pas cette sensibilité de genre, et aussi c'est de notre devoir de pouvoir de pousser et de permettre à ce qu'il y ait des femmes debout. Il ne faudrait pas qu'on cesse de le dire, Mais depuis les années 60, quand il y a eu nos indépendances, même si chacun d'entre nous a une conception de cette indépendance, toujours est-il qu'il y a eu des femmes qui étaient debout pour pouvoir revendiquer leurs leur, leur, leur, leur droits. Et ce n'est pas pour rien que tout à l'heure, quand on faisait la rétrospective, depuis les indépendances, il y a eu des femmes qui se sont battues pour l'indépendance, ça c'est les aspects politiques. Mm. D'autres ont continué pour défendre les intérêts économiques des femmes. D'autres ont continué dans la sphère de la société civile pour pouvoir engranger toutes les actions que nos différents pays ont eu à mener et toutes les conventions en les ratifiant, c'est une chose, mais l'essentiel, c'est de pouvoir les mettre en pratique. Et nous sommes aujourd'hui dans ça. Il faut qu'on puisse les mettre en pratique de manière réelle et palpable. crois que tant qu'on n'aura pas réussi cela, notre autonomisation va poser problème. Les questions de financement posent problème. Une femme à qui vous demandez un taux, euh, une garantie, alors que vous considérez que celle-là n'a pas les moyens, heureusement qu'il y a eu des structures comme FDA, comme d'autres peut-être, qui ont pu permettre aux femmes de pouvoir émerger et de pouvoir accéder à ces crédits. Ça aussi, c'est un cas important qu'il nous faudra poser. dans dans le cadre de cette de cette autonomisation Madame Soukaina Ndiaye Ba on a, on parlait tout à l'heure de votre expérience de FDA de ces femmes à la base est-ce que avec les mécanismes qui ont été mis en place elles sont arrivées à à, à rentrer dans cette autonomisation autonomisation des femmes personnellement moi je me suis dit on ne peut pas continuer à être dépendant euh, ni de l'extérieur, ni de d'autres personnes. Il faut qu'on crée notre propre environnement économique. Et c'est de là que l'idée de FDA est née. Personne n'y croyait. Il y avait Ndioro à l'époque, à, à, il y avait d'autres femmes, chercheurs comme les Fatou Sow, etc. Et quand je parlais de ça, les gens me disaient ça c'est de l'utopie. Faire du crédit, avec quels moyens ces gens-là n'ont pas, on leur a pas appris à utiliser l'argent, il n'y aura pas le retour. Je dis Parce que si on n'essaie pas, on sera confiné aux petits projets que de bonnes volontés avaient financés, parce qu'on parlait beaucoup de, de, de d'intégration des femmes. Donc on avait droit à des petits projets, jardinage, un peu d'élevage, etc. Mais c'est des projets, quand le projet était terminé, on attendait un autre projet. Donc moi, je me suis dit, les femmes ont toujours assuré une certaine autonomie économique.

mais vous garantissez que vous allez rembourser cet argent à 100 pour cent on va voir que vous êtes capable de travailler et de de vous faire si on vous aide elles l'ont fait elles l'ont réussi au début beaucoup n'ont pas cru mais quand on a commencé et la demande était tellement forte qu'on a commencé à nous dire il faut rajouter un petit quelque chose qui aujourd'hui donc aujourd'hui si on fait le bilan euh, de cette approche économique ça a apporté beaucoup parce que je pense que beaucoup de femmes ont pu bénéficier de ces services qui ont commencé en étant dans des groupements avec même 30 000 francs. Moi, j'en connais beaucoup qui aujourd'hui sont dans l'import-export, sont dans le bâtiment, sont dans énormément de choses. Elles savent faire des transactions financières, etc. etc. Il leur manque encore beaucoup d'accompagnement, bien sûr. Il faut qu'elles soient accompagnées pour pouvoir faire des bilans, pour pouvoir payer les impôts normalement. Parce qu'on a toujours la crainte que quand on déclare, on, on va vous facturer toujours vrai. Mais toujours est-il a tout un accompagnement qu'il mais et surtout avoir les moyens de pouvoir accompagner ces femmes-là à des conditions préférentielles. Je ne dis pas des conditions douces, mais préférentielles. Parce que quand on dit qu'une institution de microfinance est chère, les taux d'intérêt sont élevés, mais on ne pose jamais le problème d'où vient l'argent. L'institution emprunte. Si vous empruntez à 9% et que si vous ne payez pas, on vous le refacture au-delà de 9%, vous avez des charges, vous n'avez pas beaucoup de moyens de marge de manœuvre votre marge de manœuvre c'est ce que vous facturez au client bien sûr euh, c'est un problème mais je dis que le problème peut être résolu si ces mêmes institutions reçoivent de l'argent à des conditions douces sur une durée longue parce que si on vous prête sur 30 mois deux ans vous avez très peu de temps votre seul problème et votre seul souci c'est de rembourser l'argent ça c'est une question la deuxième question nous avons une réglementation. C'est pas nous qui les définissons. Si nous devons démontrer nos capacités à être une bonne institution, à avoir 95% de taux de remboursement, parce que nous utilisons aussi l'épargne des populations qu'il faut protéger, c'est vrai, mais on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, que si vous ne payez pas, ben on est obligé d'aller là faire ce qu'il faut pour que vous nous payiez. En parlant de ces financements et de ces euh, de, de de cette stratégie, peut-être qu'on est en train de développer un mécanisme euh, qu'on va qu'on va lire tout à l'heure. Cécile, on va regarder l'élément de de de Robert Djandi. Hein, qui nous parle de ces femmes qui sont euh, euh, au sud du Sénégal et précisément à Sédhiou, qui sont des femmes transformatrices. On va regarder l'élément et on revient. Bientôt, les soucis de labellisation de leurs produits ainsi que les problèmes de financement ne seront plus qu'un mauvais souvenir pour les femmes transformatrices de fruits et céréales de la région de Sédhiou. Elles ont reçu ces assurances de la part du ministre de l'Enseignement supérieur qui leur a remis des matériels d'emballage et de transformation. Vous serez armés pour jouer le rôle de transformatrice des produits agricoles, pour créer de mini-entreprises est en contact avec monsieur le ministre du Commerce, monsieur Alioune Sarr. Il va nous aider pour que vous puissiez labelliser vos produits. En contact avec le ministre de la Femme, Mariama Sarr, elle pourra nous aider, vous aider à avoir des financements pour pouvoir développer votre travail. Le ministre a annoncé à l'occasion la pose de la première pierre au mois d'avril d'un bâtiment devant abriter l'espace numérique ouvert de Sédhiou d'un coût de 500 millions de nos francs. D'un étage avec un amphithéâtre de 200 places, deux salles de 100 ordinateur des salles visioconférences, des salles techniques qui vont permettre beaucoup d'utilisation de technologies de l'information et de la communication et évidemment les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, mais les élèves de Sédhiou, les parents d'élèves, les travailleurs de Sédhiou pourront utiliser cet instrument pour utiliser l'Internet et pouvoir évidemment élargir et leurs connaissances et leur savoir-faire et leurs Le ministre a demandé aux femmes de bien prendre soin des matériels reçus pour devenir des entrepreneurs dans un contexte marqué par le programme des domaines agricoles communautaires. Merci à Robert Diondi pour cet élément. Donc, des femmes de, de euh, de, de, produits locaux qui ont reçu un don de, de matériel de transformation et d'emballage de la part du ministre de l'Enseignement supérieur et qui leur a promis de les aider aussi pour la labellisation de leurs produits, ainsi qu'à l'obtention de financement. Réaction, Madame le ministre, parce que vous êtes dans le domaine, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Est-ce que c'est comme permettre aux femmes je cas pense concret que, oui je pense que l'autonomisation c'est un ensemble de choses la femme euh, la, la femme qui produit est dans une chaîne de valeur et la chaîne de valeur doit être prise du début à la fin donc la production c'est une chose l'emballage c'est une autre chose la labellisation c'est une autre chose le transport la commercialisation donc s'il y a une rupture à un certain niveau de la chaîne de valeur il y a un problème Si nous prenons le cas de la, de la production du riz, parce qu'on en parle beaucoup ces temps-ci, et que le président de la République a misé sur l'agriculture, ce qui est une excellente chose parce que le Sénégal doit assurer son autonomie en matière d'alimentation. Tout le monde le sait, nous vivons des produits des autres. Et, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a produit ce riz-là, souvent ce que j'entends, les femmes sénégalaises ne savent pas préparer ce riz. Ah, moi, je ne sais pas parce que je ne il faut que ces gens qui, qui et donc et le producteur ne peut pas être celui qui commercialise non plus. Il faut qu'il y ait quelqu'un à ce, à ce niveau de la chaîne. Mais ce quelqu'un-là doit être formé, encadré, éduqué pour pouvoir voir que ce riz-là, sinon on ne met pas une note pour dire comment on doit préparer ce riz, il y a des problèmes. Et une fois que le consommateur se rend compte qu'un produit ne le satisfait pas parce qu'il ne sait pas le faire, mmh. il va considérer que le produit est mauvais. L'autre aspect, c'est que la promotion du produit, c'est fondamental. C'est un autre bout de la chaîne. Vous avez le produit, ça arrive jusqu'à Dakar. Les gens ne savent pas où se trouve ce produit. Il y a la concurrence avec les autres produits. Il y a vraiment énormément de choses. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails. c'est un aspect. Vous prenez les produits halieutiques. On sait que le yet et le guet, il y a des problèmes d'odeur. De, Déjà. Donc, les jeunes modernes, leurs appartements n'ont pas envie d'avoir ça dans Mais il y a des manières de traiter. Nous avons des instruments comme l'ITA ou d'autres mm qui peuvent accompagner dans le traitement du produit jusqu'à ce que ça puisse entrer dans la maison sans problème, avec toute la sécurité. Donc, encore une fois, nous devons, pour tout, euh, à tout niveau de production, avoir les personnes qu'il faut. On sait que la question de l'emballage est un problème fondamental et je félicite le ministre d'avoir offert à, à, ces dames de la Casamance d emballages. C'est une réelle question. Mais est-ce que l'État ne doit pas miser sur la création d'instruments d'emballage chez nous, plutôt qu'on les importe Aujourd'hui, que je sache, il n'y a qu'une société en mesure de faire des emballages en carton au Sénégal. Ça, depuis presque toutes nos depuis les indépendances. Donc, le verre, on ne le fait, produit pas ici. Vous savez que les, les gens utilisent du verre recyclé, avec tous les risques. J'ai vu des gens utiliser euh, les, les, les bouteilles des hôpitaux, les bouteilles de transfusion pour mettre de l'huile de palme, avec tous les risques, etc. Vous allez au marché Tilène, vous verrez qu'il y a des gens, leur spécialité, c'est de vendre les produits recyclés. Mais on ne sait pas ce qu'il y avait à l'intérieur des produits. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils qui restent dans ces, dans dans ces, dans ces, ces Donc, la question de l'emballage est un problème qui doit être réglé au niveau même de l'État. Il n'appartient pas aux producteurs de le faire. Sinon, ce que font les gens, c'est d'aller l'importer des autres pays. Mais si vous l'importez des autres pays, vous sortez nos devises et vous faites travailler les autres, vous ne faites pas travailler notre population, alors qu'on parle de taux de chômage assez élevé. Donc, véritablement, je reviens à une chose, c'est la gestion des chaînes de valeur pour qu'on assure une bonne production, une bonne euh, circulation du produit et une bonne consommation de ces produits-là. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Je rappelle que vous avez un vol à prendre. C'est dommage, on aurait aimé que vous restiez avec nous jusqu'à la fin, mais euh, on, a, on, a, ne veut vraiment pas que vous ratiez votre vol également à cause de nous. Je vous laisse dire le mot, de la fin parce que vous allez partir, pas le dernier mot, mais le mot de la fin, votre message, à qui vous rendez hommage principalement, et je vous, laisse partir. Pour Merci Dina, je stv aussi. de, nous, de m'avoir donné cette opportunité et surtout d'être sur un plateau avec euh, des sœurs avec qui j'ai cheminé depuis de longues années. Je ne sais pas s'il y aura une fin, si maintenant, un mot de la fin maintenant, mais parce que je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de réussites, parce que quand même, le Sénégal fait partie des pays qui s'est battu pour la cause des femmes depuis très longtemps. J'aime à dire que depuis la promotion humaine, depuis Ben Madi Cissé, euh, on a eu des, des, des personnalités ici qui ont marqué le Sénégal dans ce domaine. Une qu'on ne signe pas beaucoup, c'est Mantoulaye Guène. Mmh. Euh, qui a disparu mais qui était une grande battante pour les femmes aussi. J'ai parlé de Maïmouna Kane, de Annette Mbaye Derneville et de d'autres qu'on ne peut pas toutes citer comme ça. Et je, je voudrais véritablement leur rendre hommage aussi et dire que ce sont des révérences. Marie-Angélique Savané, et d'autres, Fatou Sow, qui a été une de nos, Fatou Sow, de l'IFAN, Fatou Sow Diagne, qui a été une des grandes dames de la recherche, reconnue mondialement, dont on, qui travaille dans le silence, mais qui a fait un travail extraordinaire pour ce pays-là. Donc toutes personnes-là et d'autres, et toutes celles qui sont dans les campagnes, dans les, dans, dans les, au bord des plages, en train de pêcher, etc., etc., celles qui sont à la maison, qui gèrent la maison, parce que c'est un autre travail. à toutes ces femmes-là, on doit rendre hommage. Et vraiment, je vous remercie d'avoir organisé le 8 mars autour de cela, en disant qu'il faut que nous ayons des 8 mars avec des, des, des parties éducationnelles, mhm. de, des parties rétrospectives, mais des parties évaluation, mais que ces évaluations nous servent de leçon. Il ne s'agit pas de les évaluer et de dire il nous manque ceci, il nous manque cela. Il faut aller au-delà. et finalement, après, il ne se passe rien. Ce n'est pas normal que le 8 mars, Aujourd'hui, les Sénégalais ne savent pas qu'à New York, ah oui. on va parler, on va, parler. On va débattre de, cette, de question. cette question. Tout le monde devrait le savoir. On devrait aller à New York, comme on l'a fait pour Beijing, avec une plateforme revendicative ou une plateforme en tout cas qui est la parole des femmes sénégalaises au sens large, toute euh, conviction confondue, toute appartenance politique, société civile confondue. Et c'est ça qui fait un grand pays. L'ensemble des gens se mettent autour d'une question essentielle pour le pays. Et c'est ça, que je voudrais donner comme dernier message, en m'excusant une fois. Je vais à, à, un autre voyage, toujours pour défendre la cause des femmes en partie. Beaucoup. Chers téléspectateurs, chers amis qui nous suivez un peu partout, si vous venez de nous prendre en cours, nous sommes euh, dans le mars et nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous euh, des femmes qui sont euh, leaders dans leur domaine et qui ont toujours œuvré pour que la condition des femmes au Sénégal s'améliore. Et dans ce cadre, nous étions justement en train de parler de cette thématique qui concerne les femmes au Sénégal, mais le thème mondial qui est l'autonomisation des femmes, l'autonomisation de l'humanité. Madame euh, le ministre a parlé tout à l'heure de l'aspect économique par rapport aux femmes et, et nous allons aborder l'aspect social. Madame euh, Safietou euh, sur les résultats. Aujourd'hui, quand on parle de résultats par rapport à l'aspect social, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui Nina, il faut dire qu'au plan social, le Sénégal a beaucoup avancé du point de vue du, du statut des femmes. Euh, si nous prenons le domaine de l'éducation, par exemple, nous avons atteint la parité dans le primaire. Euh, actuellement, c'est 50 pour cent 50 pour cent dans le cycle primaire entre les filles et les garçons c'est un très très grand pas il reste maintenant au niveau secondaire que nous puissions hâter le pas et véritablement euh, euh développer au niveau universitaire parce que c'est là où on a un très grand gap nous n'avons que dans le cadre de l'enseignement supérieur si nous prenons le domaine de la santé qui est d'une importance capitale pour les femmes parce que qui dit femme dit santé de la reproduction dit maternité dit euh, santé de l'enfant dit santé de la famille là aussi nous avons euh, euh, vraiment accompli beaucoup de progrès euh, déjà le taux de couverture contraceptive tel que nous l'avons engagé l'État du Sénégal avait engagé euh, pour faire progresser ce taux-là, nous en sommes à 20% de couverture contraceptive. Et nous venons de très très très loin. Parce qu'il faut dire que dans les années 2005, nous en étions à 12% de taux de couverture. En quelques années, nous avons fait des progrès extraordinaires et ces trois dernières années, nous avons fait six points de progrès pour atteindre 20 pour cent de taux de contrace euh, de contraception alors que l'État a fixé vraiment le barème de 27 pour cent de taux de contraception d'ici 2000 euh, 2015 ça veut dire que nous pouvons rapidement progresser quand bien même qu'il nous des points à accomplir euh, mais au moins nous avons dans le cadre de la santé de la reproduction sur euh, la question de la planification familiale sur la question de, de, euh, des césariennes parce que actuellement toutes les régions euh, euh, bénéficient de la gratuité des césariennes et du point de vue aussi de la mortalité maternelle et infantile nous avons euh, vraiment euh, gagné des points la mortalité a beaucoup baissé quand bien même que nous n'avons pas atteint l'OMD il faut le dire. Il faut le dire et le rappeler aussi. Mais euh, ce que, ce que nous, nous, avons, au niveau de la société civile, ce que nous avons le plus apprécié, mm -hmm. c'est l'engagement du gouvernement sénégalais lors du sommet de Londres en 2012 sur FP 2020, comme on le dit, sur la planification familiale et la santé de la reproduction euh, euh, au niveau de la famille. L'État du Sénégal s'est engagé à doubler le budget euh, des produits contraceptifs de euh, deux cent pour cent de cent pour cent il faut le dire je parle sous le témoin de euh, l'honorable député parce que nous avions eu à faire le plaidoyer pour que l'État respecte ses engagements par rapport à, au sommet de Londres. Mm Et à l'état actuel, dans le budget de 2015, l'État a mis 300 pour cent de budget au niveau des des produits contraceptifs. Mm -hmm. et au niveau des produits allant dans le cadre. de, de la santé de la reproduction. il a il s'est engagé aussi à doubler le budget des programmes et politiques de santé et particulièrement de la santé de la reproduction. Et nous pensons que avec euh, l'engagement euh, de l'État et la volonté vraiment de, du ministre de la Santé, notre sœur Eva Marie Colsec. Euh, d'ici 2020, nous allons atteindre quand même des résultats probants en ce qui concerne la santé de la reproduction et le repositionnement de la planification familiale pour atteindre une croissance démographique acceptable. Parce que l'émergence du Sénégal, telle qu'on le décrit dans le PSE, ne peut se faire maîtrisant systématiquement la taille de la famille, mais en misant sur la santé de la reproduction des femmes et des adolescents. Mmh. femme déjà a mis en bandoulière la la la la la la problématique de la euh, prise de décision comme moyen vraiment de changement de nos sociétés. Il faut que les femmes accèdent à la prise de décision. Et ce qui est important, euh, euh, euh Nina, c'est que nous allons vers le bilan de Beijing plus 20, mais ce bilan doit intégrer les priorités des ODD de l'agenda post-2015 qui doit prendre en charge l'essentiel des priorités des femmes africaines. Et dans les priorités des femmes africaines, il y a les priorités des femmes sénégalaises y compris. Et nous avons huit domaines prioritaires identifiés depuis l'éducation des jeunes filles il faut le dire parce que il faut que nous ayons une masse critique de jeunes filles qui atteignent le, euh, le euh, l'université et qui développent systématiquement des savoirs pour atteindre le le, le maximum d'initiatives en en termes de développement. Il y a aussi la la question du travail décent, mais il y a aussi la question des violences faites aux femmes mm-hmm. qui intègrent ces huit priorités de domaine euh, ces huit priorités ainsi que la santé de la reproduction de la femme et je pense que c'est le moment opportun aujourd'hui 8 mars pour parler de ces huit domaines mm-hmm. pour en débattre dans tous leurs aspects mm-hmm. et en faire notre euh, parchemin pour que nous puissions euh, euh, aller vers l'agenda 2015 mm-hmm. et se voir inclus dans les priorités mondiales mhm. et que le développement du pays puisse véritablement être pris en charge au sein de cet agenda. Mhm. C'est extrêmement important ce que nous sommes en train de dire mhm. parce que c'est l'avenir du monde qui va se jouer cette année-ci en 2015. Et si les femmes ne font pas attention sur les priorités qu'ils doivent indexer, qu'ils doivent intégrer cet agenda, l'Afrique pourra rater le train du développement d'ici 2035 et ne Honorable député Hawa Dia Thiam, Madame le ministre, on a euh, euh, décision parce que ce sont ces femmes qui sont dans décision qui peuvent permettre justement quelque part qu'on puisse les conditions de vie des femmes du Sénégal et en condition de vie de toute la population sénégalaise, Comment vous, au niveau des partis politiques, vous arrivez à faire en sorte que les choses changent En termes de résultats, je sais qu'il y a des choses qui ont été faites, mais où est-ce que nous en sommes Et qu'est-ce qu'il nous faut de façon euh, très concrète faire pour euh, impulser les choses si elles n'ont pas été impulsées Vous avez raison, mais au-delà même des partis politiques, l'autonomisation des femmes passe par la prise de décision. Oui. la décision politique en tant que telle, cest la décision dans l'action, dans l'action de développement. Donc cette prise de décision, les partis politiques participent par le biais d'élections. Le biais d'élections, on a mis en place la loi sur la parité. Nous sortons des élections locales où aujourd'hui on peut compter au moins 47% euh, des femmes représentent, euh, sont, euh, les élus, parmi les élus, il y a 47% euh, que les femmes représentent au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes à peu près à 44%, alors qu'on a il y a Dans le mode d'investiture, c'est important, parce qu'au niveau des partis, euh, je le souvent, par exemple pour l'Assemblée nationale, partout où il fallait investir une personne, un citoyen, on a investi un homme. Quand il faut et une femme. a fait que avec 64 femmes au lieu de 75 femmes. Alors que normalement, avec le, la la parité, on devrait avoir cela. Donc c'est quelque chose aussi à refaire. Donc c'est une, ça fait de l'évaluation. Donc il faudrait soit rajouter le nombre d'élus. Mm -hmm. Le nombre d'élus, c'est faisable pour pouvoir atteindre cela, en pour ce qui est de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour des locales, On a un homme tellement réduit de femmes. C'est à peine 13 femmes mères. Mais, mais c'est lamentable. Pour un pays où on a eu, où on a une loi sur la parité. Donc ça veut dire que déjà, il faudrait que les femmes s'approprient très bien de cette loi, qu'elles puissent se mettre ensemble pour défendre les intérêts des femmes Dans la grande ville comme Dakar, vous vous rendez compte, on n'a même pas de femmes mères. Je crois que c'est un problème et c'est quelque chose euh, reprendre parce qu'il y a eu tout un processus avant Beijing. Beijing. Avant Beijing, on en était au statut de quota. Je me souviens que les structures de la société civile s'étaient battues pour qu'on ait déjà des quotas. Euh, on a parlé de l'implication de nos structures telles que le COSEF qui était considéré comme une bonne pratique à Beijing. Quand on allait à Beijing, on avait fait une pétition, on venait de naître. Mhm. C'était considéré comme une bonne pratique. Mais cette bonne pratique, au fil du temps, a Pour la parité, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut évaluer, qu'il faut saluer, renforcer et ce renforcement aussi maintenant dépend des femmes politiques, de notre engagement à être ensemble, de notre engagement aussi à prendre des décisions pour l'intérêt des populations, mais aussi pour que les femmes puissent exercer réellement leur rôle de femmes politiques pour arriver à une autonomisation réelle. Parce que sans présence des femmes au niveau des instances de prise de décision, on ne pourra pas arriver à une autonomisation véritable des femmes, au niveau même des postes nominatifs aussi. On a eu une femme Premier ministre, on a eu, une femme, euh, des femmes qui, ont, qui aujourd'hui euh, ont des postes de souveraineté. Comme je dis, les, les postes stratégiques, que ce soit la sécurité, mm. les finances et autres, bon il y a l'OFNAC il c'est bien mais il faudrait que ça soit de manière diffuse qu'on puisse le ressentir à la base et que au niveau des communautés rurales on parle de communes rurales mm. mais qu'il y ait des femmes qui dirigent ces communes rurales il faudrait que qu'on ait l'appui de l'ensemble des femmes mm. pour qu'on puisse arriver à criminaliser le viol qu'on puisse régler les questions de santé de la reproduction On a longtemps agité la question de l'avortement médicalisé. Ce n'est pas un tabou, il faut qu'on en parle. Donc je voudrais quand même terminer par ça pour qu'on puisse améliorer la loi qui existe déjà sur la santé de la reproduction pour que cette question de l'avortement médicalisé mmh. ne soit pas une question taboue, que ce soit une question que l'on pose avec toute son objectivité, qu'on puisse aussi criminaliser le viol pour que les populations sénégalaises sachent que une femme c'est un être qu'il faut respecter et qu'on ne viole pas quand on en a envie. Je crois que tout ça, c'est des aspects importants sur lesquels je voulais quand même qu'on insiste. honorable. en parlant de la santé et de la reproduction, je voudrais seulement euh, faire un coucou à Madame Hawa Cham et lui rendre hommage. Elle a sorti un ouvrage sur la sexualité féminine africaine en mutation et dans cet ouvrage, on parle de euh, tout ce qui est mutilation génitale féminine, mais également de l'avortement et de tout ce que les femmes ont toujours vécu comme euh, étant des souffrances qui ont été mises sur le dos de la culture et également des traditions. Et je vais juste dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, nous ont suivis. Nous avons abordé la question de la journée de la femme aujourd'hui. Nous avons pris Euh, plus d'une heure de temps pour échanger en français. Nous allons le faire en Wolof parce que je rappelle que nous avons également parmi nous des femmes qui sont à la base. Je rappelle que tout à l'heure, je disais qu'il y des femmes élues locales parmi nous. mbokk xarit ñuy seetaan dañu wax ne dañuy def 8 mars wante bu ñu ne 8 mars dafa am fu mu jóge ak lu ko waral moo tax ñu dalal ñi nga xamante ne ñooy suñu gan yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw fii pour waxtaan ak ñun ci di 8 eh, mars. lan moo waral 8 mars bi ak lu waral ñu toog tey waxtaan si. dañuy wax souvent 8 mars folklore la pecc meeg tissu yi ñuy nuroo leeg togg yeeg ñoom insaan ci la ñuy gën a jublu que li nga xamante ne moom mooy lan moo waraloon 8 mars ak fan lañ ci toll ci mbirum jigéen ñi ci Sénégal fan lañ ci toll buñ ko waxee dama bëgg euh, ñu euh, waxtaan ak madame Ndiaye mu nga xamante ne moom moo nekk présidente RAFPA madame Ndiaye concrètement yéen bu ñuy wax 8 mars yéen nu ngeen koy doxalee parce que souvent dañuy ne association yi dañuy def mbirum euh, Euh, euh, folklore bi kaf bi foo beeg euh, cotiser yéeg bu ñu defee tontine nii ñu jël xaalis bi jëndee ko or toog di xaar leneen ñëw li ñu bëggoon 8 mars bi yéen nan ngeen ci gisee seen bopp ndax dugal nañ leen ci ni mu waree war lan moo manqué. waaw asalaamaaleykum ñun 8 mars bi ah, ñun ñu ngi ko doon célébrer depuis ay années mun naa ne avant sax 2000. Mm. parce que bu ñu xoolee ñun suñu génération peut-être avant 2000 la ñu commencé am ay association bi ñu amee ay association yàlla def ñuy dox di dox ba 2010 si association yooyu ñu am ñu créer réseau bi nga xam ne tey moo tey tudd RAFPA mm-hmm. RAFPA dafa nekk réseau des associations féminines des Parcelles Assainies képp ku ci nekk rek fekk na amoon nga association bien avant 2000 wala ñii après deux 2000 lañ ko am dëgg la gaa 8 mars bi ñu ngi ko doon célébrer. am na woon folklore. Mhm. nga baal ma ñaata association ngeen ci RAFPA. ñu ngi nekk cent 120 association 120 association waaw. loolu bëri na de. bëri na waaw ñaata jigéen la war a doon. dina bëri ay deux mille et quelques. ay deux mille et quelques femmes Parcelles Assainies. waaw te du tere am na yeneen association yoo xam ne sax ñu ngi Parcelles Assainies te bokkuñu tamit RAFPA. Mhm. loolu moo lay won ne Parcelles Assainies dafa nekk milieu boo xam ne. waaw milieu bu am ay organisation yu organisé wu lañu. Mhm. parce que au-delà du RAFPA am na yeneen association ak yeneen réseau yu fa nekk yoo xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def biir commune bi. 8 mm-hmm. mars bi gaa comme ni ko ñëpp waxee ñëpp xamoon na amoon na folklore. Mm-hmm. mais ci année yi passé mi ngi commencé di améliorer wu. mi ngi améliorer wu parce que ñun boo xoolee depuis 2010 dañuy jël thème yi nga xam ne moom la euh, ñuy joxe. Mm-hmm. ñuy xool naka lañ siy liggéeyee comme ay di ko defal ay euh, sensibilisation wala ay causeries si suñuy membre defe naa au niveau des médias sax yéen war ngeen xam ne euh, amélioration am na si parce que gaa niroole yi amoon na fi mais léegi dañ def sax ne dootuñ nangu jënd niroole yi dañ naan ko am sa lu weex solal <laughs> da ngeen bañ niroole waaw bañ niroole parce que loolu dañ doon dem ba mujj gi nit ñi dañ koy def folklore wala ñu def ko loo xam ne nit ki sax dina bëgg a jënd niroole du am mu def def benn frein frein bi mooy bu amul euh, mbubb bi nga xam ne moom la ñuy sol moom du mën a ñëw te loolu daf doon nekk loo xam ne day marginaliser suñuy membre loolu moo taxoon ñu ne niroole yi gaa baax na mais tamit am na côté bu mu doon yàqee loolu moo taxoon ñu doon uniformiser ne ku am sa lu weex si sa yére nga sol ko boo amul loo sol nga baax lu sol baax na thème yi nga xam ne dañ ko doon joxe depuis 2010 dañ si daan def ay atelier am na année boo xam ne amoon nañu euh, lutte c gaspillage bi parité bi liggéey nañ si aussi lu bari au niveau de la base euh, aussi lu euh, violence faite aux femmes fii aussi lutte lutte nañ si lu bari def nañ si ay thèmes liggéey si ak jigéen ñi euh, santé de la reproduction aussi liggéey nañ si lu bari ak jigéen ñi si au niveau de la base kon jàpp naa ne am na évolution mais lu bari tamit des na. Mhm, mhm. waaw lu bari des na. Mhm. lu bari li des loolu par rapport ak autonomisation bi ñu wax nga xamante ne moom mooy temu ren. bu ñu nee famille autonome yéen de façon concrète ci association nu ngeen di def pour ñu ot ngeen autonome mën a jëndal seen bopp lii am seen financement yoo xam ne yéen a ko moomal seen bopp dem def sa li nga war a def sa projet yi te doo ci am sukkandiku boo xamante ne forcément il faut nga am foo mën a wéeru pour sa projet mën a dem ci kanam. waaw ñun si financement yi. ñun foofu dinañ si taxaw tuuti parce que ñun au niveau du RAFPA ñun financement yi sax ñun favoriser wuñ ko de trop. parce que boo seetee structure euh, financière yi fi nekk nga xam ne ñoom ñooy jox jigéen ñi ay financement seen taux yi bari na bari goo xam ne ñun dañu jàpp ne au lieu que mu dimbalee jigéen ñi da leen di gën a ndóolal ndax li leen leen di gën a ndóolal da ngay gis ku jël financement financement bi peut-être tegal nañ la si taux boo xam ne walla yow ba nga koy jël xooloo sax taux bi ñaata la walla yan lan ak lan lañ la tegal pour financement bi yow l'essentiel financement rek nga gis nga dem jël ko boo ko jëlee premier mois bi ngay fay boo ñëwee bu ñu la nee temps ngay fay sax doo xam ne intérêt bi ñaata la toll woon ba ngay signé hmm. loolu yëpp ay problème la yoo xam ne ñun si RAFPA dañ ne ñun nañ commencé suñu doole bopp suñu doole bopp mooy membre yi ñooy cotiser chaque mois loolu ñuy cotiser ñun si la ñuy def suñu financement bopp yoo xam ne ñun ñoo koy joxante suñu biir te duñ si teg benn intérêt hmm. ñàkk intérêt boobu aussi finan euh, cotisation bi ngay joxe moo lay permettre yow la nga waroon fay intérêt ci banque ba loolu mooy yokk sunu capital parce que boo naree boo naree fay intérêt ci banque ba intérêt boobu ñun dañ koy def sous forme de cotisation nga koy verser chaque mois loolu day yokk sunu capital ba yow bés boo jeexalee sa financement liñ lay joxaat dinañ ko mën a augmenter parce que yaa ngi participer ci cotisation mensuelle yi du tere tamit bu ñu amee subvention yoo xam ne dañ ñu ko jox mhm. dañ koy yokk ci li nga xam ne mun ñoom mooy sunu capital ñun si réseau RAFPA ñun noonu la ñuy liggéey actuellement ñu ngi si cinq ans yoo xam ne ñu ngi si réseau bi mais amagul benn financement extérieur boo xam ne jël nañu. jërëjëf euh, maman Mati bu ko defee dama lay bàyyi nga jox kàddu gi madame Pina parce que moom élu local la te dama comme dañu wax sànq fii honorable député dafa ne euh, Dakar amuñu maire bu jigéen loolu problème la moom gore la nekk commission finance la yor ah xanaa bu jógee commission finance xëy na dinañu dégg mairie Gorée prochaine locale madame Fina ñu ngi lay jox kàddu bu la neexee nga exprimer wu en français. merci Nina ah, très bien en fait euh, je suis effectivement élue locale à Gorée et c'est mon deuxième mandat et le premier mandat j'ai eu le poste de président de la commission des finances et le, le ce mandat-là aussi je suis pré également président de la commission des finances pourquoi parce que j'ai quand même les capacités J'ai une expérience euh, bancaire. Je suis retraitée de l'administration de, des banques et j'ai été au niveau de la banque. Donc ces éléments-là m'ont permis de tenir ce poste je pense de le tenir à satisfaction. Mmh. Mais en fait, je parlerai plus de mon association. C'est l'association des femmes de l'île de Gorée. C'est une association qui a été créée en 97. Cette association a pu, en plus de la promotion des femmes, et la sensibilisation des femmes dans leur rôle au niveau de la population goréenne, mettre sur pied un élément, un outil important qui est une caisse, une mutuelle d'épargne de crédit. C'est une mutuelle que nous avons créée en 2002, que nous avons créée sur fonds propres, comme le disait notre copine, sur fonds propres. Nous n'avons pas eu de financement, nous avons commencé avec 150 membres, aujourd'hui nous en sommes à 1200 membres. avec une majorité de femmes. Aujourd'hui, nos encours de ressources euh, s'évaluent à 56 millions de ressources, avec 30 millions de crédits en cours, avec une majorité de femmes qui bénéficient de ce crédit-là. Nous avons commencé par les petits crédits, comme tout le monde, mmh. de 50, 100 000 francs. Aujourd'hui, nous faisons des crédits de 3 millions à Et quand il s'agit de groupements féminins, elles peuvent avoir jusqu'à 5 millions de crédits. Nous n'en nous sommes pas arrêtés là. Nous avons créé l'année dernière une mutuelle de santé mhm. pour aider nos femmes, effectivement, parce que quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas rembourser votre crédit. Et donc, à ce niveau-là, nous avons beaucoup avancé. Mhm. Mais nous n'avons pas travaillé seuls. quel est le rôle de la mairie à ce niveau-là Comme nous étions aux commandes, nous avons pu orienter un certain nombre de subventions au niveau des femmes. Nous avons pu organiser les femmes autour du comité consultatif local des femmes pour leur permettre de mettre sur pied des projets. Mmh. Et nous avons pu revendiquer au niveau de la mairie un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous revendiquons tout ce qui est gestion des édicules publics. Et c'est quelque chose que les femmes peuvent gérer. Nous revendiquons un certain nombre de choses que nous avons pu obtenir du fait que nous étions euh, à parité au niveau de notre mairie. Et nous n'avons pas attendu la loi pour être à parité. Ça fait deux mandats précédents où Avant la, loi, nous parité avions déjà la parité de fait. Donc il faut savoir que les femmes Agoré bougent beaucoup. Il y a beaucoup d'associations et qui bougent beaucoup. Donc nous avons quand même participé à la vie sociale au niveau de l'île. Et je pense quand il a fallu aller aux élections, les femmes ont pu revendiquer leur place, même pas parce qu'elles étaient déjà présentes à ce niveau-là. Ça, c'est Merci, c'est ce Merci que je pourrais beaucoup. dire. Merci, Merci beaucoup. Merci, Madame, Pina. Je, donne, je vais donner la parole à, à, Madame euh, Rakiwan, élue Local. Euh, euh, euh, vous, vous, yow li ngay def mooy commission euh, éducation moom ngeen yor. mais en dehors de ça Coco Femme fan ngeen teg seen tànk ci mbirum développement condition jigéen ñi ci ci biir Coco Femme nan ngeen organiser woo. d'accord merci Nina. Mhm. maa ngi rafetlu ci jataay bi. donc euh, nous je suis d'abord élue locale en 2009 j'étais la première adjointe maa nekkoon première adjointe au maire euh, Barthélémy mhm. Diaz le maire de maire sacré sacrique bi ma toogee mu jël question jigéen ñi yëpp mu teg ko sama loxo jël aussi question yu jëm ci éducation yëpp mu teg ko sama loxo léegi ndax ci biir loolu ma nekk di xalaat naka laay def ba organiser jigéen yi ba ñu mun leen accompagner ba ñu mun leen impliquer ci seen gestion localité léegi bu ma defee loolu toog di xalaat entre temps li yàlla di def euh, le ministre de la femme madame le ministre de la femme du temps daal di ñëw pour mettre en place ay structure benn structure bi nga xam ne dafa war a regrouper association de famille daayira yi ak mbootaayu jigéen foofu nag laa tëb ma saisir opportunité dinaa inter dinaa def un clin d'œil clin d'œil à l'honorable député mhm. parce que bi ma toogee li ma jëkk constaté mooy que les femmes la nomenclature budgétaire jëluñu leen en charge mhm. mën nga def subvention d'une manière aisée aux ASC d'une manière aisée au, au lieu de culte et cetera mais les femmes n'étaient pas prises en compte maire bi bu ko bëggee def sax il faut mu xool yan. yan yan yan ficelle lay teg en place pour mën ko def. maire yi ko def yëpp ay ficelle la ñu utiliser mais légalement kii bi supporté wu ko la nomenclature hmm. budgétaire nee naa la nax ma toog di xalaat di xalaat di xalaat xam nga buñ la chargé say moromu jigéen xamoo nooy def. faf ba ministre de la femme ñëw ak structure boobu du temps que je euh, considère que c'est c'est un acquis si biir euh, cadre boobu nag bi mu ñëwee dañ ko saisir dañu saisir opportunité bi parce que dañ ko yàkkamti woon beneen constat bi ñu defoon aussi au niveau de la commune que dafa am pléthorique de d'associations de femmes de daïra de kii il fallait les organiser moo tax bi ministre de la femme indee structure boobu ñun ñu saisir ko en opportunité daal di koy jëmmal taxawal ko di def euh, jëmmal ko taxawal ko def ko nag un cadre fédérateur mm-hmm. euh, def ko lieu bi nga xam ne vraiment day tax ñu renforcer suñu solidarité mm-hmm. et puis mettre en en place des activités euh, waaye ñun fu ñu gën a sukkandiku xëy na déformation professionnelle la ci formation bi. waaw parce que yow enseignante la. waaw enseignante nga. parce que dama ne autonomisation de la femme bi ñuy wax. Mm-hmm. Mm-hmm. il faut que ñu capacité jigéen ñi. Mm-hmm. bañ ko mun koo doxal. donc man foofu laa gënoon sukkandikoo. ba am na ay formation yu bari defal nañ ko jigéen ñi ci euh, affaire informatique micro jardinage formation ak transformation des fruits et légumes ay formation yu bari def nañ ko au niveau de Coco bi loolu weese weesoo ñu xool aussi que les débats dañ koy ñi koy porte daal mooy genre ñoom Awa Dia Thiam genre ñoom Safiatou mais à la base. les femmes waaw ah. base bi la ñu bokk ñoom si base bi la ñu bokk léeg-léeg expérience bi nga xam ne bi femmes yi xëy na dañuy ragala a participer wala. ma xalaat loolu tamit ñu organiser ay def nañu deux éditions dîner débat. Mhm. première édition bi. Euh, ñu ngi ko accès woon thème bi moo doon euh, l'éducation et la crise des valeurs la responsabilité des femmes mm-hmm. lii yàggul ni le 14 février la ñu def euh, l'utile à l'agréable comme mm-hmm. c'était le 14 février si aussi ñu def beneen dîner débat thème bi moo doon la santé environnementale mm-hmm. femmes et jeunes responsabilité citoyenneté dans la santé environnementale donc yooyu yëpp ñu ngi koy def au niveau de de Coco Femme loolu yëpp li ñu wax nii rek parce que femmes yi il faut ñu intégrer leen ci développement donc yooyu yëpp jot nañ ko def ba léegi comme li nga wax tamit au niveau de 8 mars. Mhm. man ànd naak li ñu wax parce que boo demee demee ba 8 mars mun nga taxaw def sa bilan. Mhm. boo paree nga xool fan ngay jublu. Mhm. par rapport ak lan lan moo lan la ñu def yan ak yi la ñu am ak lan moo des la nga xam ne euh, après dinañ ci jublu mhm. jéem a xool jéem ko liggéey ba vraiment autonomisation bi ñuy woote femmes yi vraiment mun ci gis seen bopp. Mhm. donc Coco Femme mooy euh, conseil consultatif des femmes voilà. de donc euh, Coco euh, bi sax euh, est un cadre qui a été ni ma ko waxee rek. Mhm. par le ministre de la femme mais dañ ko jëmbaal ba jox ko suñu turu bopp. waaw ñu ko Coco parce que <laughs> parce que dañ ko yàkkamti woon am. donc euh, par rapport au financement ñun fonds propre la ñu demee. li recettes yi ñuy am ci dine débat yi moom la ñuy accompagner femmes yi nga xam ne am nañu ay projets yu ndaw ou bien euh, jàppale leen ci ay formation donc ñun noonu la ñu gisee. moo taxit dem ñu dugg ci ay prêts bay am ay problème ay taux yu élevé parce que man dama ne yooyu en général parfois. peut-être FDA bokk ci mais dañuy gën a accentuer aussi pauvreté femmes yi. Mhm. parce que femmes yi dañuy leb sans projet bu paree ñu utiliser ko <laughs> neneen. et après daf leen di. njëndum or mi fii. ak ñoomin seen ak yooyu euh, xamante ne fi xaalis bi war a dugg de façon concrète xaalis du fa dugg. ak ci ak cin bi waaw parce que loolu tamit ma honorable mi ngi koy wax. mais njëndum or meeg cin bi. Mm-hmm. parce que souvent yow tamit nga yor financement yor benn xaalis di jaay. Mm-hmm. chaque jour boo jaayee dépense bi ba nu mu tuddat bénéfice bi nga jël ko dugal ko ci ci ci cin li mu nekk encore recommencement à zéro. Mm-hmm. mais dama bëggoon rek ñoom li ñu wax euh, li madame. Euh, Pina wax ak li madame Ndiaye wax Parcelles Assainies euh, waa RAFPA ak euh, li madame Wan wax euh, madame Safietou ñu laaj waa réseau Siggil Jigéen parce que xam nañu réseau Siggil Jigéen yàgg nañ ci Sénégal di dox ci mbirum jigéen yi di ci def ay jéego nan ngeen gisee seen taxawaay ak lan lañ leen war a mën a jàppale nu ñu mën a def pour ñu gën a développer seen réseau yi ak exemple gore bi nga xam ne franchement man impressionné na ma quand même parce bu ñu nee parité bi dugg na avant ñun ñuy dugal loi parité bi. Ah. c'est une très bonne chose te loolu mën war ci mën a félicité tamit maire bi nga xam ne mooy maire Gorée Augustin euh, Senghor. très mhm. waaw euh, foofu euh, damay commencé par loolu sargal Augustin sargal communauté goréenne bi yépp waaye sargal jigéeni Gorée yi ci prise de conscience bi ngeen jël. ba taxaw ci seeni mbir ba tax ñu mën leen considérer tey jii ngeen mun a nekk à la prise de décision waaye euh, madame Pina wax na ko li ko yombalal elle elle a été conseillère pendant deux mandats elle est encore conseillère elle a occupé un poste de pouvoir dafa occupé ci biir conseil bi poste de pouvoir bu am solo moo di euh, la commission finance nga xamante ni ah, orientation budgétaire yéen yéen a koy organiser <laughs> mm-hmm. yéen yéenay def vraiment le vote du budget yéenay yéenay euh, def vraiment tout le travail euh, euh, euh, euh, concernant l'argent les ressources de la communauté yéen a koy dispatcher et proposé ko au conseil li ma lay wax dama ko xam parce que man defe naa ni am naa huit mandats électoraux et parmi ces huit mandats j'ai été à deux fois vice-présidente du conseil régional de Thiès gis nga madame Pina bu boo poste boobu nga occupé moo waral mairie gore bi nga gis carrément ni les ressources war nañu ko mën a orienter vers les femmes et ma rejoindre Racky ci revendication bii mu teg mm. ñun ñëpp ñu gis ko mu di euh, non sensibilité du budget local en genre parce que nomenclature budgétaire bu collectivité locale yi jëlul en charge ni la question de la femme ni la question de la santé de la reproduction et foofu la réseau Siggil Jigéen actuellement di agir dañu am plaidoyer bu mag a mag adressé au ministre des finances adressé au président de la république parce que ñu ni acte trois de la décentralisation dañu delloo askan wi gëddaam muy muy nas di nocc ci ay yitteem majorité bi nga xamante ni mooy jigéen ñi ak ndaw ñi euh, nomenclature budgétaire bi saytu alal yi jëm ci askan wi foofu jëlu ko en charge mu di wërgu yaramu njur bi jigéen ñi te mu considé con mu am muy jigéen muy ndaw parce que santé de la reproduction ñaan yi ñoo ko séq mu di jigéen les les les femmes et les jeunes parce que y la santé des jeunes et des adolescents alors loolu gëm nañu ni bu ñu génnee ci 8 mars bi autorités yi dina dinañu dégg kàddu jigéen ñi yéen ñi nga xamante ni yéenay ay conseillers municipaux ngeen ak ay conseil départementaux grâce à la loi sur la parité il faut que yéen ñëpp ngeen mobiliser nag dans un cadre et euh, Nina ci laay waxee ni il est grand temps que femmes élues locales yi ngeen redynamiser seen organisation des femmes élues mm-hmm. locales mm-hmm. par ordre vraiment de de de de collectivité ñi nga xam ne ñoo nekk ci conseils municipaux yi ñu def seen association des élus locaux municipaux régler seen problème ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ordre départemental bi ñu def ko parce que loolu mooy leen doon dooleel ngeen def revendication wu révision wu loi bi nga xamante ni moo di mooy régler la nomenclature budgétaire je pense que elles sont tout à fait réceptives à cette revendication en tant que femme députée ñoom itam di taawu parité parce que douzième législature mooy taawu parité mm-hmm. mais suñu lijjantiwul lii dès à présent avant que ñuy avancer fenn acte trois de la décentralisation moom dafay na sax parce que ñi nga ñi war a yellool alal ji mu di jigéen ñi ak ndaw ñi ak santé de la reproduction duñ ci am et ñun dañu def plaidoyer pour que loolu am et lii mu wax maire yi ñoom ñëpp ñu ko wax dañuy am ay ficelles yu ñuy tirer pour que ñu wut xaalis pour financer les produits contraceptifs financer la planification familiale dans leur collectivité euh, locale waaye loolu du ko faj li koy faj moo di décision suprême de l'autorité mhm. changeant la loi parce que la loi est l'instrument de transformation pour notre société mhm. li ñu amoon ci waxtu jeex na wante il faut que honorable mhm. euh, ci ci li nga xamante ne moom la élu local yi wax ak waa RAFPA bu ñu ko waxoon comme yéen yéen a nekk assemblée nationale yéen ñu fa représenté yéen ñu war a mën a taxawal ba nga xamante ne li ngeen di wax dana mën a am impact pour que ñun ñu mën ci jëriñoo nan ngeen ciy doxalee ak lan moo si sa kàddu jërëjëf damay jëkk rafetlu kuréel yi am mhm. ci collectivité locale yi ndaxte ñi fi toog yëpp ñun ci suuf la ñu jóge mhm. man mii di wax ak yow am naa ñetti mandat ba collectivité local amee ba léegi 96 élu local laa woon ren daaw rek laa bañ nekk euh, laa bañ a nangu ñu tabb ma ma yaakaar ni am na ñeneen yu ñu fa mënoon a tabb mhm. ñu continuer ko muy ci Médina ma nekkoon fa di ko rafetlu aussi di leen sargal parce que muy waa parcelle muy waa gore muy waa Sicap mais daf di loo xam ne dañu traduire en acte maanaam dañu jëfe la nga xamante ne moom la ñuy théoriser. Mm-hmm. buñ ko jëfee mooy jigéen ña booloo jigéen ña bu ñu dool boolee rek dañuy am doole. naka la amee doole dañuy am doole ba tey jii ñoom ñuy xool ne war nañu am nomenclature bu baax dañu gis ne. Mm-hmm. li fi am doyu leen te muy dëgg. bu ñu xoolee gore gore ay cadre nag ñoo fa nekk baax na bu ñuy analyser gore lu tax ñu am résultat yi cadre yore mbir mi te loolu it dafa am solo expertise war a mun a def benn liggéey ñu jox la ko nga def ko kon na dañ ko war a sargal ci loolu moo tax ba tey jii loolu tamit bu ñu naan jigéen ñi bu ñu nekkee fa ñuy nasee ki nocci da nga fay am njëriñ mhm. madame Pina ku am njëriñ la ci li muy def ku am xalaat la meeram ak ak nu ñu gore constitué looloo waral ba leadership bi ñuy wax jiit gi ñuy wax it dafa am nuñ koy wuyoo te moom daf koo wuyoo muy njëriñu askanu gore muy njëriñu askanu Sénégal muy suñu njëriñ ñun ñëpp ñu di ci xool di ko jëriñoo ñoom it muy euh, euh, nu mu tudd te RAFPA it tamit moom nga baal ma foofu moom xam nga nee nañ commission bi mu yor commission stratégique la mais man comme li ñuy wax sànq rek gisoon naa dans le futur mu nekk maire xam naa la ne la ci ba may pare di tënk ci tubaab dama ne autonomie. ah faw mu jaar ci prise de décision. moom laa tëjee sama waxtaan ñoom dañ koo jëfe ñun nag dañu war a def suñu kem kàttan di ko jëfe fu ne waa RAFPA war a ameel seen bopp. donc loolu loolooy wane ne jigéen ñi mën nañoo yore mbir mi. Coco Femme euh, euh, même chose donc loolu mooy wane ne rek ñoom ñëpp ay Coco Femme ñoom boo demee xool ña fa ne ñoom ñëpp rakk yi dafa modeste toog. waaye jaar jaaram daf leen a may ba ñu mun a toog tey jii ñu mun a am xalaat bi mun a am gëstu bi mhm. nomenclature budgétaire ñun bés bu ne ñu wax ko assemblée bu fa budget bay ñëw nomenclature ba amul genre sensible au genre amu ca bés bu ne ñu wax ko gouvernement bés bu ne ñu ne budget sensible au genre ba semaine bële rek laay interpeller ministère de la femme mhm. ne leen nañu bàyyi di dabe mhm. dañu war bu ñuy élaborer mhm. ci lettre de cadrage bi nga xam ne moom mooy def euh, mooy séddale budget bi ci ensemble gouvernement bi yëpp dañ cee war a sóoraale jigéen ñi dañ cee war a sóoraale dimension genre bi ñoom dañ ko bind rek ci benn lettre ci benn phrase ci lettre de cadrage bi waaye dañu war a fexe egg comme dëkk bu mel na Maroc il faut que ma wax ko parce que ñoom dañu dem ba bu ñuy def budget bi hmm. dafa am rapport genre bu mu koy accompagner donc loolu dafa leen di tax ba nga xam ne dina ñu mun a bu ñu eggee ci warum école hmm. budget ba lan la ci xale yi ndaw yi jigéen ñi ci am lan lañ leen jagleel ci budget wu agriculture naka lañuy ñuy fexe ba aussi jigéen ñi hmm. nangam dina egg ci wàllu jigéen ñi donc loolu yëpp ci nuñ koy tëggee la ni ñu koy tegee ba nga xamante ne dañ koy mun a jëriñoo donc collectivité locale dafa am solo boo seetee ba may waxtaan naan ba ñuy appliquer loi parité fa war a gën a am njëriñ ndax folo nit ñi dëkk mhm. askan ba fa dëkk boo fa deful sotti fa la nga xam ne mooy soppi doxalinu askan bi mooy dooleel nekkinu askan bi mhm. ah defe naa ne defoo liggéey bi ci anam yu baax boo deful aussi ba askan boobu nga xam ne lu ñu am maire lu mu am moom lay delloo askanu bi nga xamante ne moom lay dundee donc budget yooyu aussi dafa war a baax am budget bu takku waaye tamit ña fa ne dëkk li di war a xam fañ koy dugal mu bañ a doon loo xam ne rek ah dañ koy pasar pasaree à droite et à gauche donc loolu yëpp ay défilé ñun jigéen ñi ñu am te man damay rafetlu jotaay bi nañu fi toog fii ay jigéen ñu am taxawaay lañu mbir mi du am sax mbir mu du dégg tubaab bu leer waaye mbir mi mooy nga xam noo mun a lëkkaloog askan bi noo mun a jël njëriñu askan bi ba nga xamante ne dinañu mën a demal seen bopp loolu mooy autonomisation te defe naa ne loolu buñ ci nekkee di ci dox di ci dem ah 8 mars bii dina am njëriñ loolu ndax 8 mars bii nga def tey exemple la 8 mars taxaw seetlu la taxaw seetlu xool lu baax xool li nga xamante ne moo ñuy jëmale kanam donc combat nomenclature bi defe naa ne bu nee local collectivité locale yi nga xam ne lim ba fa to ëppee ci ñu ñuy fal ak ñun ñu def ko tam ca kaw am naa yaakaar ne nguur gi ci boppam dinañ ne ah jigéen ñi am na lu ñu bëgg am na lu ñu bëgg am na li ci li nga xamante ne loolu moom la ñuy yellool bëgg nañ ko am te am am boobu xaalis bi la le nerf de la guerre comme ni ñu koy waxee ah lay doxal dëkk bi moom xaalis bi la ñun looloo tax ñu fal ñu en tant que député muy tamit loo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def suñu kem kàttan di fexe mais loo xam ne buñ ko bindee xaatim ko ndax mbirum budget xëj na madame Pina moom ñoom ñoo gën a am euh, moom la ñu gën a tàggat ci loolu ñoom ñoo mën a am pexe yoo xam ne dañ koy def dañoo war a sonn nag ci pexe yi dañ ñoo war a boole ci ba ñuy mooñ ba ñuy defar ñu xam ne lu ñuy mooñ dañ koy mooñal góor di ko mooñal jigéen te tamit gox dëkk-dëkkaan yi alphabétisation dafa amoon doole jigéen ñi ba ñu nekkee ci groupement yi dañ leen doon jàngal loolu tam war nañ ko gën a yeesalaat war nañ ko gën a dëgëral ndax tamit bu ñu naan euh, acte trois de la décentralisation dañoo delloo euh, doole bi ci askan bi ah askan bi tamit pour mu am doole bi il foog mu xam fu muy mhm. teg tànkam i foog mu xam la nga xamante ne moom lañ koy indil mhm. naka lay mënee def ba mun ko jëriñoo rawatina jigéen ñi xam nga maa ngi doon naan ba may wax sànq ne jigéen ñi ñoo ëpp mhm. ah politique booy def te sóoraale woo ñi nga xam ne ñoo bokk ñoo ëpp sa askan sa politique boobu day naax saay te am na ñu yaakaar ne ñii fi ñëw tey nga tànn leen muy tànn bu am solo muy am loolu la ñuy wax impact impact as euh, décision wu jigéen ñi. Mhm. looloo waral ba ma doon wax ba ñuy commencé manaan amul maire jigéen xam nga maire bu jigéen nu muy yoree commune am am na euh, fin mu jigéen nu muy feeñee bokkul ak fin mu góor boo xam ne même bëgg na jàppale jigéen ñi. wante ñun ndax bu ñu jógee rek am na nu ñuy jógewaale am na nu ñuy defaree suñu. Mhm. suñu suñu suñu gox góor yi xëj na. même bu nee faral nañu bu baax jigéen ñi mënuñu am loolu. Mhm. loolu la ñuy wax tamit spécificité. Mhm. donc autonomisation wu jigéen ñi. Mhm. mooy fexe rek ba ñu mënal seen bopp. man parti bi ma bokk noonu laa tudd yoonu. askan bi mouvement pour l' autonomie populaire. man autonomie laa gëm. autonomie mooy fexe ba la ngay def ëllëg. ñu ngay nekkal ñooñu mënal seen bopp. li duuf si nag bi xajul ci cin li dañuy mën a rek daal di brosser comme ni ñu wax waxtaanee ko li nga xamante ne mooy thème bi ren ak fu ñuy jógee ba ñëw ba fii ci mbirum euh, li nga xamante ne mooy 8 mars ak jigéen ñi fu ñu toll seen tolluwaay ci askan wi lan la ñuy def ba fii nii ñu mën a toll fii ñu toll fii ba mën a dépasser loolu tamit am yeneen jéego yoo xam ne danañ ko teg pour que ëllëg ñu mën a taxaw Sénégal am présidente nag de la République jigéen parce que am nañu premier ministre jigéen ñi ñu ngi leen di tabb di leen jox ay postes de responsabilité yoo xam ne macha wante bëgg nañu mu gën a yokk ndax 52 pour cent de femmes yooyu ñi nga xam ne ñoom lañuy votel soxla nañ ko bu baax a baax a baax ndax bu ngeen voté woon du ñu mën a nekk président de la république foog loolu tamit jigéen ñi Sénégal ñu xam ko ne am nañu doole boo xamante ne c'est une majorité silencieuse qui peut faire mal et qui peut également faire beaucoup de bien te xam naa ne loolu bu ñu ko gënee dooleel ñu def def li ñuy wax solidarité féminine tamit ah madame Safiatou Diop dina ci baax ñu daal di tàggatoo. ndax si ñu joxoon ci waxtu jeex na. man def naa ne damay rafetlu rek li nga terminé moo di tey jii ñun ah, ah, suñu bëgg-bëgg war nañ koo élever parce que bu ñu nee autonomisation mu di ñu mënal suñu bopp dem politique oh, war nañu cee mën a avancé nag ba askan wi mën ñoo wóolu. tey jii dénk nu boppam parce que wone nañu depuis euh, euh, très longtemps wone nañu ni ñu mel tey jii bu ñu yegsee ci autonomisation c'est parce que jigéen ñi dañoo wone ni taxawaay bu rafet la ñu am. Mm-hmm. appel bi may def rek damay def appel nag ci 8 mars bii moo di jigéeni Sénégal ñu delloo si waat xel yi kenn ku ci nekk seet na nga nekkee woon ak sa moroom ñu xool jaaju. kenn ku ne jox sa moroom loxo ñu yaa gëm suñu bopp te teg solidarité mu di suñu slogan ñu fas yéene ñun ci suñu bopp yéegale suñu bopp ci taxawaay bi nga xamante ni bu ñu fa taxawee dinañu mën a tinki suñu askan mhm. looloo tax ñu ni autonomisation autonomisation des femmes autonomisation de l'humanité mhm. ndax ñun su fekkente ni am nañu kile euh, tawféex ci suñu dund doomu aadama yi ci àdduna bi yépp à commencer par njaboot gi ñoom ñéppay am tawféex ci seen dund te àdduna dafay gën a neex lii moo waral tey thème bi lëkkale autonomisation des femmes autonomisation de l'humanité waaye bala ñu faa egg ñun dañuy gëm suñu bopp ñun d'abord am solidarité taxaw ci fas yéene yëkkati nag sunu maanaa fas yéene gérer nag sunu dund ak sunu dund njaboot ak sunu dund askan communauté bi ñu bokk état bi ñu bokk gouvernement bi ñu bokk ba loolu yegg ba nga xamante ni àdduna yëpp dina ci law may ñaan yàlla vraiment 8 mars bi nga xamante ni date bi mu dajeel dafa doon date bu fatidique au plan mondial parce que 50 ans yii di ñëw li ñuy xayma ci àdduna bi at mii lañ koy xayma pour lu defar àdduna que ñu bañ ñun jigéen ñi ñu saisir opportunité bi bañ a rater le train et sunu gouvernement yi aussi jàppale ñu ci te xam ne développement moo ñu tax a jóg te ñoom su fekkente ni développement askan moo leen tax a jóg war na noo jàppale lim bi ëpp ci xeet bi pour que ñu mën a taxaw ci biir développement boobu encore une fois maa ngi sargal ñëpp vraiment di ñaan yàlla ñu fekke waat 8 mars bis ni ki tey mu doon tawféex ci askanu Sénégal yëpp. ñu ngi leen ñu ngi leen di sargal yéen ñëpp tamit di leen remercier di ngeen toogee seen kër di ñu seetaan fépp fu ngeen mën a nekk ci àddina bi maa ngi leen di remercier ñu ngi leen di remercier di remercier waat ñi nga xamante ne ñoom la ñu bokkaloon plateau bi. mais spécialement tey damay rendre hommage jigéen ñi nga xamante ne ñëpp ñooy liggéey 2STV Cécile Roqaya mi nga xamante ne moo nekk ci caméra bi tey. féetee sama gauche ñëpp maa ngi leen di remercier mënuma lim wante dama bëgg juste rek rendre leen hommage ñu ngi leen di wax merci di ne bonne fête 8 mars à toutes les femmes de la 2 et à toutes les femmes du monde à toutes les femmes des médias du Sénégal merci beaucoup